Mhm. accentuer sur les détails mhm. war mhm. tey xam ne am na euh, ay pàcc cantaako nii ñii tey ci ginnaaw suñ Saltel ci ginnaaw Soxna Aïda tey Mohamed cant gi bari fi la ba toll ni nga toll doxalin bi lan la war a doon tey pour que cantaako yi nekk benn waaw man de xam naa duma ci sori waaye de lenn laa xam ni mën naa ko ci wax mooy man de wóor na ma ni sëriñ Béthio mi cantaakun yëpp bokk yaakaar muy waa Kambale di waa camp bii du ma ne sax Kambale man benn camp wax toujours ni ma koy waxee mooy ñi tegu ci siratal mustaqim mooy ñi ànd ak Serigne Mountakha ci ndigalu sëriñ Touba gi waaye waxi wolof ma waxee ko noonu wóor na ma ni bu fi sëñ Béthio nekkoon li sëriñ li sëñ Mountakha wax lay def ndax moom ci lay ànd ndax ku ne xam na ni Serigne Sidi Mokhtar. yàlla na sunu borom dolli ay leeram ak i mbégam bi mu fiy nekk te sëñ Béthio am lu mu defoon ñëpp digg ci kàddoom ca seex sa mhm. te ba mu ko waxee ca saase la ko cheikh bi dindi te yamu ci dindi ko dana ko mbàkkee sama ba sax boo ko bëggoon ma dindi ko mhm. kon kooku xam na lan mooy xalifub Serigne tubaa xam na lan mooy ndigalub Serigne Touba kon ku juyoog moom ci ay kàddoom ak ku juyoo moom ci ay bëgg-bëggam yow yaa xamul Serigne Béthio man loolu laay wax mhm. waaye ñi sëñ Sall gël tàppe te ànd ak moom ci ndigalam lii ñoom laa naan bu sëñ bee ci ñëwoon tey duñ defaraat seen toogaay loolu laa am lu ma ciy wax loolu laa am lu ma ci euh, laabire